Mbadiar TV Mbadiar TV seen YouTube bi ci jamono bàyyi ko fi ci mbawoor yow mi am gàmm màggal wala siyaar nga bëgg àdduna bépp yëg ko seetaan la directement wooteel 76 751 71 kaw ca kanam abonné te bés cloche bi nga mën a am bépp vidéo bu jàll ci Mbadiar 76 la 751 71 45 Mbadiar TV daal ca bi tudd Mbadiar TV tey ñu ñëw ci émission biñ ñu tudd waar wi waar wi nag di émission boo xamee dafay xam ak xamle liggéey yi nga xam ne doomu aadama yi ñu ngi koy liggéey ci réew mi ak bitim réew moo xam bépp métier la wala euh, ak lu mu mënti doon moo tax nag tey nag ñu ngi ñëw ci dëkk bi nga xam ne fii la télévision bi bàyyi ko di Mbadiar di Mbadiar TV ñu fas yéene ànd nag ak euh, soxna yi mbootaay yi nga xam ne liggéey yu am solo yi ñu ngi ko def fii ci mbajaar Ndiaye. Euh, ànd kook ñi nga xam ne mooy soxna Thiane Gueye ak soxna Ndoye Ndiaye ak ñi ko àndal yëpp incha allah rek kon ñëpp dañu ànd euh, dugg ci euh, fi nga xam ne mooy makkaan mi waaye ni fii nag muy pencu Mbadiar Ndiaye nekk ci commune Bandañ département bu Kébémer nekk ci région de Louga diggante moom Ngumba ngewul mi toll ci ñetti kilomètre ci sa càmmoñ bu fekkee da ngaa jógee Dakar jëm Ndar ñi nuyu al imam Serigne Omar Ndiaye tabarakallahu ak sa village Serigne Abdoulaye Ndiaye ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la ñu seqal muy penc mu mag mi nga xam ne gis ngeen ko yoon wi tabaarakallaahu muy yoon wu naqaree ñëw tabaarakallaahu diggante ak ngumba ngeew dëkk bi nag am na courant am na lépp waaye nag mbir yoon daal dañu am ay jafe-jafeem ci mboole yi nga xam ne ñu ngi seetaan Mbadiar TV ñu daal di egsi nag ci siyee bi nga xam ne muy siyee bokk jom siyee bokk jom nag di ay jigéen yu am jom yoo xam ne ñu ngi dëkk ci dëkk bi ak tund wi ak ñi ko àndal yëpp te ñu ngeen ko gisee muy liggéey boo xamee liggéey bi am na euh, solo euh, gis nga soxna yi jamono bi ñu toll xam naa ne ñu ngi ci wàllu mooñ yi di di di mooñ bu baax a baax euh, macha allah waaw ñu ànd ak yéen fii ci Mbadiar TV rek waaw sigil ndeysaan naa ni soxna yu mat jàpp jàppale la Eh, seen liggéey rafet lool macha allah eh, yaakaar naa ne fii ku gis soxna yi li nga xam ne loolu lañuy liggéey li nga xam ne waa Mbadiar bàyyiwuñ seen bopp bàyyiwuñu li nga xam ne tabaarakallahu ndax danañ fi defar yu bare bari xam naa dañuy dugg rek laaj soxna si nuyu ko rek mu wax ñu turam ak salaamaaleykum soxna si. waaleykum eh, ñu sa tur. soxna Nawé Ndiaye. soxna Nawé Ndiaye fi ñu nekk mooy lan. Mbadiane Zédio bokk jom. Hmm. di boo xamante si ne. Hmm. dañoo gis nga Zédio bokk jom rek te bokk jom boobu ñu ñëw ko nga am hmm. xam ne Zé bokk ban année lañ ko lañ ko créé. Ah, ñu ko créé nag 2017. 2017 2017 ñu ko ndax waa dëkk bii la wala da ngeen am mouvement wala ku leen jàppale ba tax ngeen def ko. waa dëkk bi rek ñoom ñoo ko créé seen bopp. dëkk bi waa dëkk bi ñoo créé seen bopp. jigéen ñi rek la wala. jigéen ñi. Mhm. am na ay góor mais bariwul ci biir. Mhm. waaw mhm. ay bokk jom ndax mën nañu xam la ñuy liggéey li nga yor mooy lan. lii mooy eau de Javel. eau de Javel koy liggéey. ñoo koy liggéey ñun jigéen ñi ba jaar. ah ak lan. di liggéey tamit savon. mooy lan am nañ bi ma xool am nañ savon. saabu. waaw gaaw ci macha allah saabu mucc ayib daal. Mhm. mën nañu def saabu sangukaay fóotukaay. Mhm. parce ni ko gisee nii boo nee mën kaa def ñaar benn bi naa nekk ñaari litre fi nekk nii. maanaam benn bi boo ko jëlee. mën ko ndox ba mu ñaari litre. ñaar tam tee day fort bi mhm. na mun na laxas kër gi. mun na laxas euh, douche mun a fóot yére xale yi ak yére yenn mag yu weex yi. mais dafa mel ne mbiru njóobeen yi euh, dafa mel ne ma xool. waaw lii ñu ngi liggéey ci wàllum euh, dugub. ah dugub mais li dugub la wala mboq la ah dugub la bu naturel du am dara dugub kese la ñuy defar. ah ci liggéey caabi ci yokk dara. ci liggéey cere. Mhm. dañ ci liggéey araw. Mhm. liggéey ci njóor ni. Mhm. cere yi fël. waaw bu ci bu dee boo ñëwee am nañ ko ci mboq mi tamit. ah ah def da ngeen def dugub def mboq. mboq moo nekk ci biir. yëkkati. am nañ ko ci brésil. am nañ ko ceeb. mën a nekk sombi. am nañ ko tamit ci sànqal bi. mën a nekk laax. laax am na macha allah. am nañ ko ci farine farine li muy liggéey bari ah da ngeen di liggéey farine farine mboq bi day beñe mhm. dina defar keek mhm. dina defar ruy mhm. lépp la man moom tamit macha allah ak lan waaw su jógee ci loolu nag am nañ tamit euh, couscous bu mboq bi macha ah, allah ah couscous yi jógee nii couscous bi ci mboq bi lay fii lay jógee kon waaw ñoo koy jógee nii ah d'accord d'accord d'accord maanaam ci mboq bi lañ koy génnee bu ñu ko xoolee dañ koy dañ koy dañ koy layaat bu génnee ceeb génnee araw génnee sanqal. Mhm. génnee ceeb. Mhm. génnee couscous bi. kon yéen da ngeen di liggéey ceeb. waaw ceeb ah mais vraiment kon kaa yi nga xam ne dañu bëgg. liggéey na soo ñu woowee dafa toggal ceebu mboq bu ànd ak ginaar. ci ban numéro lekkee doo xam ne ceebu. doo xam maanaam koo xamee amoon na gan bu la neexee nga woo leen. ngeen toggal leen wala yéen nga yéen macha allah doo ko xam ne ceeb bii ci ban numéro. ci numéro 77. waaw 721. 05. 27. wala 77. 730. 40. zéro. zéro quatre. cinquante zéro quatre. cinquante zéro quatre. Mm-hmm. boo ci woo mais yéen yéen ah? euh, bi reconnaître nag wala reconnaître ko maanaam am na autorisation Fra ñun. am ngeen autorisation ñun ñuy liggéey ñun jigéen waaye na Fra. Mm-hmm. Ah. a mooy am na Fra. Fra mooy lan Hmm? sax orsaay am na fara hmm? bu dee si wàllu maïs am na fara hmm? su dee si wàllu mil am na fara soo ñëwee ba ci café dañ koy liggéey café waa am na fara café waaw dañ koy liggéey tey moom liggéey waa dañ koy liggéey soo ñëwee ba tamit ci ñebe ji lépp mën nañ defal café ñebe defal la ci caag bi. maanaam ñebe ngay jël def ko café defal waaw bu mucc mhm. ci caag bi ñebe. Mhm. sànqalu ñebe ba ceebu ñebe lañ koy wax. lépp mhm. ñebe lañ ko produire. ba ñebe bi fariñu ñebe rek léegi waaye léegi naka ngeen koy liggéeyee maanaam da ngeen am ay moyen ay machine wala lan. waaw am nañ ay machine nag. amoon na projet bu fi jaaroon jàppal bi ñu am ay machine ban projet la. projet solidarité internationale. kan moo ko jiite Matar Ndiaye solidarité. Mhm. moom moo njëkk a jox projet bi wax dëgg yàlla. Mhm. taxawal ko indi ay machine yoo xam ne moom ci lañ ko doon liggéey. Mhm. machine bi ba léegi mi ngi foofu waaw mi ngi mi ngi fonctionné nag. mooy yan. mooy machine soq ak machine wàll. kaay woon na ko euh, ndeysaan euh, machine bi moom mooy lan. machine bi machine soq bi. ah mooy soq dugub waaw lépp lu liggéey. Mm-hmm. muy mm-hmm. ko soqal mm-hmm. boo ko doon taal nan nga koy def. Ah. Ah, boo contactee mu tàkk. mu soq. nga ñëw ubbi fii mu ah, la. ko yàq. bii nag mooy ban. moo ñu bii mooy wal mais ndax góor ñi ñoo koy wala la jigéen ñi. góor a koy wal wala jigéen ñun jigéen ñoo ciy wal équipe bi ñoom ñooy defal lépp seen bopp amuñu góor gu leen di wal mhm. ñoom ko bokk wala ñëpp a ko la mhm. waaye nag ci bi fii ñu liggéey transformation bi mhm. ñoom yoo xam ne nag groupement bi yëpp ñoo la ko procès bi Matar Ndiaye sooy li ma seen fële li ma seen mooy lan lële waaw ñu egsi ñu egsi lañ koy wax lii moom mooy lan. kii machine accessoire la. mooy wax ko ci wolof parce que moom day wowal. maanaam bu ngeen defaree pare bëgg mu woo boo ko mm-hmm. lay jël. Mm-hmm. maanaam du jël courant. lay marche waaw. Mm-hmm. soo ci dugalee. moom day wowal. Ah, naka ko. boo ko ay trois la am. soo ñëwee daal di ubbi da ngay ubbi fii. da waaw. waaw tabaarakallaahu gis ngeen ko ñu am itam place bu yaatu boo xam ne euh, gis ngeen ko ci dëkk bi euh, mooy lu am solo daal euh, kon yaakaar naa ne jigéen ñi trois yi mhm. si ngay lal morsa yi mhm. soo arawee sotti ci ba mu egg mhm. dugal trois ba mu egg maanaam da ngay weer suuf du am suuf du am pënd du am dara waaw nga dugal si biir uh-huh. bàyyi mu te day gaaw te day gaaw si moom la lay def moom matt bi fourne yi nga gis nii dañ daan jël matt mais dañoo dem ba xam ne fourne yi moo gën a jàppandi te moo gën a yomb ci këriñ bi fan ngeen mën a jëlee fourne yi fourne yi tamit benn projet moo fi ñëw moo ñu ko joxoon Euh, formé ñu. dañu mm-hmm. léegi fourne yi moo gën a yomb. Mm-hmm. li taxit ñu jël fourne yi mooy. Mm-hmm. dañu bëgg a yombalal nit ñi. ñu bàyyi daggum garab sax nag. ndax dañu bëgg léegi bàyyi matt mi daan dagg di wuti di sonn. ñu bàyyi ko léegi di jël këriñ bi ndax këriñ moo gën a noppal te garab bi ci. en mais cere bi damaa gis nga uum ndox ci nekk wala lu ci nekk. ñulum nii fi ne ma génne ma xool dañoo ñulum nii fi ne mi waaj a waaw muy lay ci indi bi wala maa tay na fi mu nekk soxna defal ñu xool mën a nekk cere kon mm, mm, mm. ah, Fatou dafa daal di daf daal di lay waaw mi ngi lay cere bi ñu mën a waajal tey ah, mu nekk càmm ah. maanaam day am lu ngeen teg ci indi bi ba ndox mi du ko laal waaw léegi bu ko defee waaw daal di koy tay ah koy tay mën nekk nag caaf bi ñu pare nag ñu doog a weer mm-hmm. bi mm-hmm. waa suñu emballage. waaw ñu xool ba tey yéen a ànd ak euh, Mbadiar TV nekk fii ci émission bi ñu tuddee waar wi waar wi nag tey moom mi ngi fii ci Mbadiar def nañ ko dëkk yu bëree bëri waaw. bu ñu ba pare noonu nag. Hmm. ci la ñuy doog a weer woon mooy wax ci la ñu amee emballage mooy lan maa ngi ci ngeen defee mbuus yi. emballage dañuy am un kilo. boobu mooy lan. ñu koy jaayee 1000 francs. 1 kilo 1000 francs. ñu am 500 grammes ñu koy jaayee 500 francs. waaw dañuy am 250 grammes bi ñu koy jaayee 250. Mm-hmm. waaw. mais boo bëggee 5 kilos ñu defaral la ko. boo bëggee lu ko ëpp. waaw am na am la 5 kilos am nañ ko. am mm-hmm. nañu mm-hmm. emballage 5 kilos. emballage 5 kilos yi koy am. kon tabaarakallaahu gis ngeen soxna yi. ñuy liggéey liggéey bu sell boo xam ne kenn gisul mu takk suuf mu ay ay jàmbaar. 5 kilo bi 5 kilo bi. waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mais dama dégg Sénégal ñi def ay foire ndax yéen mës ngeen dem foire. waaw ñun dañu dem foire. foire bi sax fi ne ñu ngi ci foire feeraay bi. waaw waroon nañoo dem. waaye empêchement bi moo tax mu ñu dem. mais le mars bi fu ngeen ci toll. le ñu ngi koy pare. Hmm. ak solidarité internationale war koo exposé. góor gu Maxtaan baax mi. waaw ba ko exposé ji géewul. Hmm. incha allahu rabbi. Hmm. di ci woo nag mbawar mbawar yëpp. ñu xeex jigéen ma yaay Njaay Géé Dio bokk jom. ñu wane fa lu kenn mësul gis nag yi produit céréales locales. fi toll kan mooy jiitu euh, euh, Géé bi. bi soxna Thiané Guèye lañ koy wane. soxna Thiané Guèye. salaamaaleykum soxna Thiané. ñu ngi lay nuyu di la ziar. yow yaay njiital jigéen ñi mhm. ah, jigéen ñi nga àndal di liggéey première question moom bànneex nañoo àndal. jàmbaar la nu moom. gëm ko moo tax tey ñu yegg ci ba tollu fii. ndax metti na lool. waaye nag lépp rek ñu ngi ci ngëm-ngëm ba léegi. xaati wuñu benn yoon macha allah. waaw ñu ngi def seen ko sama secrétaire waxee rek. soxna na ko waaw noonu la demee rek. jàmbaar la lool nag moom wax dëgg yàlla moom. waaw moom daal ñoo ci wàllu taxawaay bi yan jafe-jafe yi nga yaakaar ne am ngeen ko fi ñu ku leen doon dimbali lan la leen war a mën a dimbali. waaw taxawaay bi de moom xam naa mu ngi aju ci diggante maanaam li ñuy liggéey. Hmm. xam naa ni mu war doxe moom doxin bi des na. Mm-hmm. parce que nag ah njaay dafa metti ci boo amul ku la jàppale. Mm-hmm. pour mu dem fu kawe. Mm-hmm. day xaw a doy waar. xam naa daal ci wàllu problème mu njaay daal moom mooy sunu problème moom. ndax amuñu ay partenaires yu jëm ci kaw yoo xam ne dañuy. mooy jóge ca ñëw ñëw jàppale si leen. waaw yooyu daal moo xaw a manqué moom. que waa dëkk bi ñu ngi ci jàpp. Ah, waaw waa dëkk bi ñu ngi góorgóorlu de ndànk-ndànk rek. naa nag dëkk bi moom xaw naa xaw a sooxe tuuti rek. waaye ñu jéem daal ñu ngi jéemantu de. maanaam dëkk bi daal euh, ñoom seen seen mbir la daal. waaye tund wi itam ndax yeneen dëkk yi ñu ngi ci ñëw di participer wala dafa yem ci dëkk bi rek. non yéen rek yeneen dëkk yi ni ñu ciy jàppe mooy ku soxla rek ñëw jënd. Hmm. mais ku soxla rek ñëw jënd la demee noonu nag ci waa dëkk yi. mais suñ leen benn nawet ba du ngeen ci am ay jafe-jafe ba daal dañoo bëgg mbay de. ah déedéet ñi ci nekk moom nun mën a bay bay rek bu heure liggéey jotee moom dañuy dagg moom dikk liggéey moom dëgg yàlla. Hmm. leen tàqaleeg leen na moom pour leen soññee ne leen tey commande am na moom dañuy ñëw liggéey moom ah da ngeen dem ay commande ay gàmmu ay ay ay màggal yooyu waaw lu ci waay soxla rek ak bu du même ku yor bitik boo soxlaa def sa commande ñu defaral la nga ñëw dem teg si bitik yooyu yëpp da ci am na wax dëgg yàlla mais su ngeen wàccee su ngeen wàccee ba pare da ngeen di jël euh, denc ko fi wala ngeen ko yóbbu ci kër yi teere rek la ñuy koy waaye ci fii lañ koy bàyyi. fii lañ koy bàyyi. waaw fii lañ si lépp rek. Mhm. waaw lépp <laughs> ah, ma def loolu moom. Ah, ah. waaw. waaw dama ñëw mhm. Mhm. finance ci wàllu finance am ngeen ñu leen ci jàppale wala. ah loolu de moom wax dëgg yàlla moom. moo xaw a doy waar financement de moom yaa ngi woo ku leen mën a jàppale daal. moom daal maa ngi tàllal saay loxo rek. képp koo xam si ne daal war nga no mën a rek tàllal nañ la suñu loxo nak question bi mujj moy ci walu am am bi ngeen di am naka ngeen ko def ko ci do wala ngeen def weer wu dee kenn am dara mais loolu moom àgguñ ci moom hmm comme dañuy soog a doo suñu liggéey maanaam ni mu war a doxee doxewul waaw ah dañuy soog li taqale tank tank rek tollagul mhm. fu ñuy sédalé ak yooyu xam naa jot da ngeen di liggéey di def par benn benn dal waaw di liggéey tank tank rek nii xamna rek xeyna naa bu deggul dal dana mos sañu inshallah mais am naka ngeen ay gor yu leen jappalé waaw góor ñi de moom wax dëgg yàlla nag moom ci wàllu liggéey bi ñu nekk. Hmm. ah taxul ñu bari ci moom. amu leen góoru mbootaay wala amu ah, leen di jàppale wala. suñu góoru mbootaay daal muy sunu nijaay Pape Gueye. Hmm. kooku daal moom bu yees ko wax yàlla moom dañ ko fi gis moom. waaw hmm, ah, moom dañuy jàppale ci lu bari moom ci wàllum yóbbu bagage yeeg. indi bagage yeeg yooyu yi ci des it nag dañuy fay rek waaw. ci wàllu santé ndax li war ci wàllu wér-gi-yaram ba nit ñi mën ko lekk mi ngi dox wala. Ah, waaw waaw ci de. Mm. xam naa tey moom xëy na nin demee la rek mm. ndax bu njëkk li ñu koy jàngalit nag moom mm. wax dëgg yàlla li ñu wax mooy di takk yi pour wax jeeg yooyu xëy na kooku moom sooxe na fi moom kon daal yéen a ngi def def ay formation ak yu demee ki noonu def nañ ko moom ndax lii dañ koo jàngi ba ñëw mm-hmm. looloo tax mm-hmm. waaw nan cee formé de ban mokkal ko nag kon la en tant que présidente yow lan ngay wax doomi Mbadiar yi ak tund bi ak ñi leen bëgg la jàppale waaw ñi moom day ñu ngi tàllal suñu loxo ñëpp rek di wax ne ne ñëpp jàpp rek te bàyyi insha allahu day baax suñu sañoon li ñuy def tey ñoo doomi dëkk bi yëpp ñoo koy bokk ndax mbajaar rek la ñu am te nun ginnaaw bu ñu yàlla bu ñu sonn rek waa mbajaar tax bëgg a tekki ak it bëgg rek suñu dëkk jëm ca kanam moo tax duñu noppalu wenn waxtu fu ñu toll rek boo nu làmbee tekki ñu fii ñuy wax ne doomu mbajaar yëpp rek nan bokk ñëw bokk liggéey bi ah di sottee xalaat rek insha allah am ba bëgg ñu mën ko am ci dëkk bi kàttanu yàlla. kilifa yi ci dëkk bi. Mhm. seen taxawaay. waaw kilifa yi ma wax dëgg yàlla macha allah ndax ñu ngi ñu ñaanal chaque jour. Mm-hmm. réeré wuñ ci ak ñoom benn yoon ndax yaakaar naa lii lépp. Mm-hmm. ah waxtaan nañ ci ak ñoom. Mm-hmm. ban defal ñu ci ñaan fu mu toll itam. ah ñu ngi ciy wax wax dëgg yàlla kàddu yu rafet. ci ñun dinañu ko ci dooleel. waaw ah, moo tax daal li cëpp doole rek ñu ñemet ci li nu nekk ah, ndax boo amee ñaanu kilifa rek. lu bari da maanaam chef de bi ak imam bi yëpp ak ñoom ñëpp ñu ngi ci taxaw. wax dëgg yàlla ñoom ñëpp feeñ nañ ci biir loolu ndax seeni ñaan yegsi na waaw bàyyiwuñ seetaan ñu benn yem daal waaw te loolu nag lu am solo la ndax nit lu muy def rek na fekk mu am ci ndigal ndigal kilifaam waaw ndigal kilifa yi kon nag euh, jërëjëf tabaarakallaahu ñu ngi ànd ak yéen fii rek euh, ci euh, émission bi ñu tuddee waaru dafa mel ne soxna Ndogay ba tey lay ci li ngeen di liggéey am na lu des de xanaa. li muy lan ndax bii moom ji la. si mooy lan. si ay boisson genre boisson la. waaw ndax dañu jóg tey xeex boisson tubaab bi. waaw ah. hmm. bi. bi hmm. nga gis nii. maanaam wane ne Sénégal lépp lu tubaab yi defar ñoom. doomi Sénégalais yi war nañ ko mën defar ñu jigéen la France mën nañ ko defar ñoom. Hmm. ndax zi bi am na daqaar. am na junjeer. am na bisaab. am na ba ci nebedaay bi dañ ko defar zi. waaw mango. lépp lu meññee tam mën na ko defar zi. bu ñu jógee am na tamit frisé lu jub. mooy lan. marché du wàññi benn fan ñun jigéen ñi see jiw bokk jëm Madiane Ndiaye. waaw transfert ñu ko jëlee na ci commune bi. monsieur mm-hmm. le maire Assane Seck bokk mm-hmm. mm-hmm. wax dëgg yàlla ñu ciy liggéey boobu léegi nag. suñu suñu gàmmu bëgg démb gi. ñu defal su bopp ay boissons. suñu amee ngeen suñu dëkk léegi. yéen a defal seen bopp boisson boisson ñun jigéen ñi ba yaa ñoo ko suñu bopp. képp koo xamante ne nga commenté boobu ak foo a nekk. daanaka dafa indi la ko. ci lu ci ayib. Mm-hmm. te xam naa soo ko mosee. li mm-hmm. nga xam ne roy dundoo ko. Mm-hmm. li ñu bay daal lépp lu ñu bay fi ne nii. da cee soppali ñu jigéen ay déem yeeg mango gi yëpp. mango ba ci lu lépp lu ngeen kélémante loo bëgg. defal la ko mu ci mais am ngeen machine yu wóor yoo xam ne nit ki bu ko lekkee du ci am benn jafe-jafe. am benn problème ndax ñun lépp lu ñuy liggéey dañuy dem laboratoire ñu xool ko. ah yéen bu ngeen defaree ba pare. ñun waa la nekk la ñuy jokkonteel. Ah. ndax ñooñu bu la autorisé moom. leer na su leer moom. waaw loolu leer na naa nañu kon daal yaakaar naa ne ñu seetaan amul amul amul fraa mhm. ndax dañu bëgg mhm. lu ñuy liggéey man di génn nit fonctionné fu nekk feneen duñu am benn problème moo mhm. lii nag day day door lu bees la demagul labon waaye incha dañ ko yóbbu labon ba pare ba am autorisation bi mu mën a fonctionné fu nekk kon lépp lu ngeen di liggéey du ngeen ko jaay feeg demu leen labo buñ xool ko mu leer nañ ñi ngeen soog am autorisation waaw moo loolu mooy yoon métti na nag parce xanaa nga fay ci xaalis day bari mais na nga nga walaab la mën ak lu métti métti moo tax ne ngay liggéey ci li nga liggéey mu liggéey mu dem fenn mm-hmm. moo tax ñun dañuy jaral ñu jël suñu xaalis ak lu métti dem fay nag waa waa Labon mm-hmm. ñu defal ñu bi mm-hmm. man ñoo autorisé ñu xam ne ñu te li ñuy liggéey tey fu ñu def mën nañ ko faa yóbbu benn problème moo tax ñu dañ daf jaral ñu waa ñun la gën a ñor ñu waa ñu waa unité bi tey. Hmm. ndax yenn saa da ngay am koo xam ne day. waaw ah, ne Mbadiar am am na ndox mais problème yoo hmm. boo xam day nekk irsan. Hmm. fekkoon am nga yoon tey bëgg koo yóbbu. da am problème yóbbu kon parce yoon bi lu neexul. fekkoon ne am na yoon bu neex nag Jakarta mën na ko fi jël lu mën a ko jël du am benn problème mm. kon yoon bi ñun ñun la gën a soxal ñun liggéey ni ba yaar mm. ndax li ñuy liggéey fi ne moo laaj yoon boo xam ne yombalay doon mm. yombalal ñu suñu liggéey ak lépp loo xamante ne si ci wàllu machine la yoo xam ne tey mën nañ ko transformer suñu loxo du ko laal duñ ko soxla tamit loolu dañ koy soxla euh, tey jii am na mhm. mhm. ko amaguñ ko soxla nañ ko bëgg nañ ko mhm. tey machine yi tey buñ sañoon tey bu yokk tey ba nga xamante ne si ñaari bu ñu yem képp dañuy soxla tey quantité bu bari ñu koo liggéey. Mhm. machine yi bari ñu mën koo liggéey. Mhm. duñ am benn problème mhm. te ñaari a liggéey quantité wal. commande kon daal eh, soxna yi seen taxawaay rafet na macha allah seen liggéey gis ngeen ko sell na baax na wóor na jiw na. moo tax ñu nit ñi nga xam ne ñooy waa Mbadiar TV itam ñu daal di dé doomi dëkk bi itam di télévision YouTube boo xam ne mi ngi émetre fii ci Mbadiar tey nag ñu am émission bu tuddee war wi war wi bepp liggey ak lu mënti liggey dañ ko ci liggey gis ngeen Odou sabé li Odou sabé bi ngeen gis nak waaw doomu Mbajaar mo ngi mo ngi tapé étiquette doomu Mbajaar mo koy tàppale Mbajaar màgg ma nga tàppale étiquette bi wane ne Mbajaar daal lépp a ngi fi muy abim jaay bo bàyyi may penda mo ngi tapé étiquette wax deug yalla kon jigéenu Mbajaar moo koy liggéey. Mm-hmm. doomu Mbajaar moo koy étiqueté. Mm-hmm. usine bi Mbajaar la dëkk. usine bi Mbajaar lañ. wax dëgg télévision bi Mbajaar la ne. bi Mbajaar la dëkk. Mm-hmm. ndax Mbaye Mbajaar. TV moo taxaw di wax ak ñun ñi kon. kon Mbajaar kon ñàkk ñu dara. te adduna baa ngi lay seetaan ci loolu. en direct allah ca kaw kanam rek. kon nag. mi ngoo jërëjëf jigéen ñi ma yaara <laughs> rajo bi ma yaara koy wallaay wallaay te incha allah incha allah kon nag ah, autorité yi nga xam ne ñoo bàyyi xel nañu bàyyi xel li xam ne rek mooy liggéeyu Badar bi waaye ku ne xam ne ne am nañu seen mm, mbokk moo xamee mooy su ma leen di góoral xanaa nes nu jox leen ko. Ah, euh, képp koo xam ne nag euh, bëgg nga sa kër neex wala bëgg nga dund dund bu euh, bu neex da ngay jéem a nag contact ak waa Mbajaar waa Mbajaar daal seen liggéey baa ngi nii macha allah yal na yàlla mottali liggéey bi xam naa ne dunu tàggoo te joxunu Papa Gueye kàddu mu wax nu taxawaayu liggéey bi ah lii lépp de moom xam naa ne moom bay ba ngeen dajale bool yéeg kanaare yeeg yëpp ah ndeysaan ngeen baal ma nag ma yóbbu ko ndaamu kër gi waaw kenn ku nekk waaw. mbokk bi asalaamaaleykum nuyu naa la. waaleykum salaam ñu ngi lay fay. mën nañu xam sa waaw man la Mori mbajaar Mbadiar. Mm-hmm. waaw di góoru mbootaayu groupement Mbadiar Juboo Bokk Jom. kàddu bi. góoru góoru mbootaayu groupe Juboo Bokk Jom bu mm-hmm. waaw. Euh, dafa mel ni ki bi nu ñëwee fekk nañ fi soxna yi ñuy liggéey liggéey bu rafet ah, euh, ci seen liggéey waaye fa la toll. waaw ah, seen liggéey de moom wax dëgg yàlla liggéey bu mucc ay parce que lu ñu leen jàngal la wax dëgg yàlla góorgóorlu nañ ci ñu leen jàngal bañ mën ko lool nag mm-hmm. waaw te def nañ ci fulla ak fayda mm-hmm. wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na sell na hmm. waaw ndax jël nañ matuwaay yi nga xamante ni bi yëpp moom la kuy liggéey war a am rek ñoom am nañ ko et puis dugub ñu maïs ñu ak euh, gerte yëpp rek yëpp ñu ngi koy liggéey waaw lépp ñu ngi koy liggéey daal ndax soxna yi liggéey bi ñu liggéey ñoo ko defal seen bopp wala ci am ndigalu kilifa yi ci dëkk bi waaw am nañ ci ndigal kilifa yi ndax jigéen bu demee na ba defal jàngi liggéey dañ koo bàyyi buñ ko bàyyiwul woon du ko man a jàngi te lii lu ñu dem jàngi la ba ñëw di ko pratiquer fii ci dëkk lan ngay wax yi mbajaar yi nga xam ne ñoo leen seetaan ak ñi nga xamee ñoo lay seetaan ci adduna bi nii di la seetaan nii directement fii ci Mbajaar TV ah lan nga leen di wax pour ñu mën a jàppale dëkk bi ci seen liggéey bi ah li ma leen di wax rek ñu góorgóorlu parce que Mbajaar doomu Mbajaar rek moo ko mën a defar suñu góorgóorloo comme ni jigéen ñi góorloo yaakaar naa ni Mbajaar day dem ca ndax tam dëkk boo fa nekkee di góor góorgóorlu maanaam jigéen ñi góor ñi ñëpp ñu àndandoo dëkk bi mën naa def dem ba egg foo xam ne dina gën a kawe suñu njort mm-hmm. képp koo xamante ne bi tam gis nga li ci jigéen ñi nekk ci tund wi mm-hmm. nga jéem a roy ci waa Mbadiar mm-hmm. ci nit ñuy liggéeyee parce que développement la ci wàllu jafe-jafe yéen jafe-jafe ngeen am waaw xaw naa am jafe-jafe tuuti parce que matériel yi des na Ah, xëy na am nañ am na lu ñu am mais matériel yi am na ba léegi. maanaam jum jumtukaay yi des na. waaw jumtukaay yi am na ñu des ba léegi. Mhm. waaw parce que wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey mais am na nu jumtuwaay yi doon doyee daal. Mhm. dina gën a amélioré wu. pour li demee nekk saabu bi. Mhm. et ak euh, ordre de sabel bi ñoom yëpp daal bu fekkoon ne jumtuwaay yi doy na. yaakaar naa ni dana gën a amal yore. dafa mel ni dëkk bi itam dafa xaw a làquwul waaye am na ay jafe-jafe pour ñëw fi waaw am na jafe-jafe dafa enclavé parce que da ngay wàcc diggante kilomètres wala 4 lépp suuf la ñëw fii yomb daal. Mhm. waaw ndax boo yoree. am diggante bi 3 kilomètres la. waaw après bi 3 kilomètres. Mhm. wala 3 kilomètres ay demi. Mhm. waaw foofu la bu ñu ci amoon ku ñu ci jàppalee itam. lu demee ni yoon. ah ñu ngi koy demande. Sénégal daal di ko demandé suñu président. Mm-hmm. mu jàppale ñu ci daal. Mm-hmm. waaw ndaxte daal bu ko defoon itam danañu gën a jàppale. tam wax dëgg yàlla ah ñoo ngi am nañ case de santé mais nag infirmier bu fi nekk amaguñ ko te bu ñu sa sañoon nit mu nekk poste de santé waaw. kooku tam ñu ngi koy demandé liggéeyu jigéen ñi tam seen groupement bi ku leen ci jàppale ñu jël parce que soxla nañu partenaire soxla nañ ay financement te wax dëgg lii ku amul financement mënoo koo liggéey parce que affaire yi dafa seer dafa seer ah. hmm, te ñoo am seen autorisation am lépp am nañ autorisation am nañ kayit am nañ franc yëpp daal am nañ ko ñoom moom international lañ lor parce que fu leen neex mën nañoo jaayee seen bagage daal ku ko jënd ñu la ne leen mbajaara ma ko jaay ñu ñëw seen numéro ngi ci biir waaw seen lépp a ngi ci biir boo leen wooyee ñu wuyu la ak foo leen mën a woo ci Sénégal ñu fekk la fa kon lan ngay wax doomi mbajaar yi ak lan ngay encouragé soxna yi xanaa ñu gën a góorgóorlu rek te doomi mbajaar yi fu mu nekk mu gën a góorgóorlu rek xam ni wax dëgg yàlla développement mbajaar jigéen ñi moom ñu ngi ci góor ñëpp nañ ci jàpp rek ak seen i borom kër rek mu gën a dox ndax lépp buñ leen bàyyee ñu dem liggéey développement la. waaw te développement rek la ñuy war ci réew yi kon nag commencé nañ ko. ñu ngi ñaan daal képp koo xam ne. kon sëñ Pape lan ngay tàggoo ak waa Mbadiar TV. képp ku ñu sut loxo daal nga jàpp leen ko rek. Mm. maa ngi tàggoo daal daal lii ñuy liggéey daal yal na ko yàlla yokk mm-hmm. defal leen ci lu kawe seen jortu. Mm-hmm. yow mi nga xamante ne bii itam yow yaa yoree Mbadiar TV. Mm-hmm. ndax. Mbadiar TV fu mu bëgg egg yàlla na fa yegg yàlla yàlla defal sutura defal ko ci mboolem jullit ak ñu bokk ko waa dëkk bi yëpp rek kon soxna Ndeye Ndiaye yaa ñuy boon ñu daal yi tàggoo ak yow rek ci liggéey bu rafet bi nga xam ne soxna yi ñu ngi koy euh, def muy lu am solo gis ngeen mooñ yi macha allah macha allah daal kon daal sant yàlla bu baax a baax sant itam euh, borom dëkk bi sëñ Abdoulaye Ndiaye ànd ko sëñ Omar Ndiaye sëñ Mbaye Bende ñoom ñëpp tabaarakallaahu ak ña nekk ca réew mi ak ña nekk ndakaaru ak fay mant nekk ci Sénégal di doomi Mbajaar wala ngay doomu Mboor wala ngay doomu Afrique wala ngay doomu sénégalais xamal ne waa Mbajaar euh, takku nañu liggéey nañu liggéey bu am solo sono nooy ñu jox la rek nga taggoo bu fekkee ne am na loo fàtt nga fàttali ñu ko. waa sëñ Mbaye ñu ngi lay sant di la gërëm. Mhm. ci teew bi nga teew tey ci jigéeni Mbajaar tey. ngir gën a jàpp ci liggéey bi gën a siiwal liggéey bi tamit. Mhm. macha allah dina ñaanal yàlla rajo Mbajaar TV ni jëm ca kaw ca kanam rek. Mhm. li ñu si doole mooy wax dëgg yàlla yi. comme ni suñu góor boo taay waxee Mm-hmm. tay fii ñu taxaw nii war nañoo sol ay blouse mm-hmm. war nañu am ay masque mm-hmm. war nañu am ay gants ñun ñooy ñooy dem ak suñu suñu suñu doole bopp rek seen a jàppal tamit li ñu ko yombal tamit ba nga xam rek ko tamit dina lu mel ne saabu bee fi ñu ngi soxla móol bi maanaam li koy móol maanaam euh, lii ay saabu la yoo xam ne war a am móol móol ah, lu koy móol suñu bopp nii jàpp rek te moo tax te kon wax seen i pot ak daal waaw mën nañoo am mool boo xam ne bu ñu ko ci moolee mm-hmm. ko yóbbul daal mm-hmm. ndax ko wan ak ay goros comme ni koy tubaab bi di defee mm-hmm. te loolu pour ñu mu am mool boppam boo xam ne da koy mool si saabu bi jërëjëf lan ngay tàggoo waaw ñuy tàggoo di sant Zédio bokk jom équipe loo leen jàngal formé leen ci rek boo leen jàngal benn fan boo ñëwaatee ñoom bari nañ ñoo xam ne ñoo leen man daal classe ñu sant na doom Madiara doomu Madiara xëy na. Hmm. amuñu ko waaye fi ñi nga xam ne eh, mbir mi. mbiru Madiara la am nañu dépense dugal seen loxo. ci xalaat ci wàllu jàppalañ ci wàllu marché bi. jàppalañ ci wàllu équipement ci wàllu connaissance yëpp ku mel ne suñu doom Mori ak ñoom. ñoom Mori seen taxawaay. gaa yi nekk réew ma. waaw ñoom Habibou ay Habibou Laay ay ñoom. Tafa Ndiaye bu Assa Ndiaye ay ñoom Mour Ndeye mun nga daal doomu yàlla daal daal ñu ngi ñëw. ñoom ñëpp daal xam ne. Mm. usine usine ba yàlla ñu ñaan yàlla mu nekk usine. ko ci maire bi ba ci gouverneur préfet sous préfet. ñu gërëm di chef de village dëkk bi. ndax moom li lépp moom la ndax dëkk bu fay def rek borom dëkk ba la neex di ñaanal suñu imam bi mu yàgg fi te wér di ñaanal suñu góor yi nga xam ne ñooy bàyyi ñu ñëw fii liggéey bi yàlla defal leen ñu woon ndax ngeen da liggéey guddi comme ay ay soxna yi ñoo fi nekk waaw ñun moom duñu liggéey guddi moom bu ñu liggéeyee ba 19 dañuy wàcc wala ay ëpp 19 ba 18 heures ñu wàcc dem ñibbi kër Louga bi ngeen nekkee amu leen ci benn jafe-jafe. am nañ Louga bi amuñu maanaam dëkk bi maanaam fii nekkee place bi. fii amul lu ngeen ci war a yokk wala leneen. waaw am nañu fa war a yokk ndax dégg ni li ma wax sànq nee naa la lu ñu gën a liggéey bi di gën a bari. ñi gën soxla ay ay ay bâtiment lu mel ne tey saabu mm-hmm. ñu liggéey wóota ànd ak lii. waaye nag comme amuñu moyen. Mm-hmm. ñu gëm leen a boole ndax machine yi waroon naa séparé ak li ñuy liggéey. lépp ñu mm-hmm. ngi ciy xaar ñu mën a jàppal tamit yi bañ mën koo séparé bu nekk ak côté lay tàggu waaw ñu ngi sant Mbaye TV di ñaan ci kaw ca kanam ci lu baax nag wax dëgg yàlla macha allah kontaan nañ sëriñ waa Mbadiar TV moo reportage ki ko defal Mbaye Ndiaye bu Mbadiar montage Baye Mass Ndiaye ñu koy sant di ci liggéey bi ak mboolem équipe bi nga xam ne mooy équipe bu Mbadiar TV di leen gërëm di leen sant di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla defal na jàmmi àdduna ak jàmmi àlaxira kon nag Mbadiar TV ngi noonu numéro bi gis ngeen ko ci écran bi dañ leen ko indi incha allahu gërëm itam Serigne Papa Gueye mi nga xam ne mi ngi taxawu jigéen ñi taxawaay bi gën a rafet ànd ko ak soxna Thiané Gueye ak soxna Nogay ak ñoom ñëpp sunu jàmbe fatikan ñoom ñëpp tabaarakallaahu seen liggéey rafet na yàlla noonu yàlla defal jàmmi àdduna ak jàmmi àlaxira kon nag ak monsieur le maire Assane kooku moom dafa bokk ci dëkk bi ndax Absatou Ndiaye yaayam mooy soxna si nga xam ne soxna si tedd soo xam ne fi la bàyyi ko woon di sëtu Brahma Ndoumbe Dame ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ak mboolem association islamique yi wala association yi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi ña nekk Dakar ña leen jiite ñoom Talla Ndiaye ñoom ñoom Baye Moussa ci Kelle a Baye Moussa Bati ki bu kenn wala. Baye Moussa Bati. Mm. wax dëgg yàlla formation moo ko fi commencé. Mm. waaw moom it Assane ñëw jàpp ci. Mm. et puis itam euh, Baye Matar Ndiaye. jàpp ci. suñ góor ki Mbaye Penda nag moo démarré woon mbootaay ba lii mën a am Mbaye Penda waaw kay ba wàccee nag. laa ci door a ñëw. ndax moo nekkoon góoru mbootaay. moom nekk na mag teg ko ci sa loxo. waaw bi nekk mag teg ko ci sama loxo. wax dëgg yàlla jëflante naal ñii ma leen wax ñëpp daal kenn ku nekk. sa loxo dugg na ci liggéey bi muy monsieur le maire di Baye Moussa Bati moom mooy première waaw monsieur le maire topp ci Baye euh, Matar Ndiaye moom itam wax dëgg yàlla def na ñëpp daal ah. bu baax a baax a baax ndax ah bâtiment bi hmm. bâtiment bi moom Baye Moussa ko fi tabaxoon hmm. waaye machine yi ci liggéeyu Baye Matar Ndiaye hmm. ci lañ ko amee waaw monsieur le maire bâtiment bi jigéen ñi ñoo ko commencé woon moom moo ko àggale wax dëgg yàlla tam ca bi ñuy miiree kër gi tam moom itam def na ci dooleem woon na ci ciment bu am maanaa kay ñu ne ñu leen miir wax dëgg yàlla koy ñoo koy sant di leen gërëm ñoom ñëpp daal xam ni daal ñu ngi ñuy jàppale mais nag gouvernement buñ ci dugal nu ñu gën a jël dana nu jël waaw ko def itam kon Mbadiar lii doon def euh, waaru li nga xam ne moo di waar wi euh, di émission boo xam ne am weer wu benn yoon dem ci benn liggéey place liggéeyukaay li wàcc laay taala karim ngir ñëpp nekk mën a jàpp ci liggéey bi ndax wax dëgg yàlla état jàmbaar la waaye mënul lépp ñun itam lan ca man itam fexe ba doomu aadama yi ñoom la ñuy liggéey ñi ñu mën koo gis kon nag gërëm rek bu baax ci wàllu montage Baye Mass ak équipe bi yëpp ñoom Mor Ndiaye ñoom ñëpp tabaarakallaahu kon nag yàlla neen yàlla defal jàmm ak jàmmal ñoom Mor Talla ak Talla Ndiaye ñoom ñëpp ñoom Mori ni ñu ko waxee sànq ak ñoom Baye Jamil na ngeen xam ne dëkk bi seen dëkk la ni ko ni ñu ko waxee waa dëkk bi dëkk bi seen dëkk la ñoom itam ñu ngi jàppale waa dëkk bi kon nag yàlla yàlla defal noonu lu nu mën a jàppale dëkk bi wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu jërë ngeen jëf Mbadiar TV Mbadiar seet seen youtube bi ci jamono bàyyi ko fi ci mbawoor yow mi am gàmm màggal wala ziar nga bëgg àdduna bépp yëg ko seetaan la directement woote TV dal ci kaw ca kanam abonné te bés kolos bi nga mën a am bépp vidéo bu jàll ci Mbadiar TV 71 45 Madiar TV daal émission Mbawoor ca kaw ca